ma fekkee si làmb ma toog. am na lu may xaar. kon am na looy xaar nii. waaw dañoo def appel te appel bi génnagul moom la ñuy xaar nii. mais sa combat ak rajaxe bi dafa bëri coow. waaw làmb ak coow a ànd te rajaxe man ak moom du tey lañ tase du démb lañ tase yaakaar naa ni daan naa ko huit moom mu daan ma trois. daan fois mu daan ma trois fois kon yaakaar naa du démb la ñuy soog a tase. amoon na combat bu mel nii Kaolack mu wër ma na ma ma prise ko ñu jox ko victoire te boobu moo gënoon a leer fuuf. lii trois appuis jël la teg na trois appuis Sénégal gépp xam nañ ko. ñëw ñëwlaat ñu ci combat bi li ngeen bëri li da nga koo da nga koo mbot. waaw. ma dugal naax comme que naax la fooree mu dugal ma naax daw taf ma ma déclenché ko mbot bàyyi ko mu rëpp trois appuis benn loxoom lii lépp tege na ak ñaari tànkam. bi mu rëppee da nga koo bàyyi. non dama continuer action parce que sa man arbitre ma sama bopp. voilà ma continuer mu daan ma. mais ñoo ngi xaar daal président yi ñi nga xamante ni ñoo jiite CNG ak suñ coach yi ñu àndal def nañ seen appel def nañ li mu def yëpp ñoo ngi déglu daal di ñaan yàlla bu génnee rek yàlla nañ ko teg si yoon bu ñu ko tegee si yoon rek ma am ndam ndax Sénégal. nga ne daan nga rajaxe. non loolu du man maa ko jàpp Sénégal yëpp xam nañ ko. Mhm. Sénégal yëpp xam nañ ne xam nañ ne teg na trois appui bu fekkente nag trois appui amatul si euh, kii bi nuñ koy atee sax chef de l'État bi ñu wax ni trois appui amul mais xam naa ne trois appuis am na ñëpp gis nañ ko ñoom gis nañ ko ñoo ngi xaar daal. seen mais mais bu dul chef de par équipe bi tamit goo leen parce que ñu ngi yéen ngi jëm ci open bi ak individuel bi. waaw faaw ngeen dajawaat. non dinañ laale fii kay poids lourd yi fi nekk yëpp xam nañ ni moom man ak ñoom du yomb am na keneen ku fi nekk ku nga xamante ni foog nañ ni mooy donkin gi xam xam nañ. te xam nañ yàgg yàgg yàgg yaa koy waxal ko kan du ma tudd turam moom xam caaka <laughs> caaka sama garaa la ngaan ngaan euh, gaskel non gaskel sama doom ndey la oh. waaw kon la <laughs> yaa tudd de <laughs> Ibou tudd de xale bu jof yooru bi waaw ah, xale la man liir laa yaa tudd de Ibou Ndiaye bëri nañ de yaakaar naa bëri nañ de daan na ma nag daan na ma daan naa ko. Mhm. sport la rek. xanaa da nga xiif. non làmb moom jarul ñuy xiifante parce que bu fekkee chef de l'État lañ ñëw ñun ñëpp dinañ tase suñ biir jarul ñuy xiifante waa mais nag dinañ tase te bu ñu tasee xam nañ ne Touba tax nga ne moom mooy donking gars yi neen mooy donking. waaw parce que man jàpp ñu ñi seetaan si yëpp jàpp nañ su ma ko laal suuf du laal suuf loolu tax xam ne donking lañ ko def. waaw ñëpp xam nañu su ma ko lu suuf moom du laa suuf fii. ñaar da ngeen a miinante da ngeen <laughs> la rek ñun ñëpp xamante nañ ñun booy ndaw ba si kaw ñun ñëpp xamante nañ. mais Ibou Ndiaye daa mën a bëre de. ndaanaan ku du naam laame ndaanaanam. moo tax ñu jël ko cent vingt kilos Dakar région bu toll nii région Dakar. yaakaar ne boo la jàppante mën nga am ci moom lu bari. si jàppante laa koy daanee de. si jàppante. bu ma koy daan si laa koy daanee te tey bu ma ko si jàppante laa koy daanee incha allah. non amu fi amul jàpp ngeem jàpp ngeem kay ñu tàggal ni la fir dóor la avertissement waaw. Ah, yow xam nga ma. yàgg na. xam nga ni ma naa la ma naa la fas njaga cere ju ma cere cere ju ma. naa la am dalaay. xam nga ma. yow la bari lool. kenn du Buur Saalum. maa ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di ziar waa région de Thiès waa Kër Moussa waa campement waa Petite Côte bi yëpp maa leen ziar bu baax a baax waa Saalum waa Sine ñëpp. waaw di ziar waa arrondissement Fimela bépp maa ngi ziar ñëpp daal ak waa diaspora bi yëpp ak sama turandoo yëpp ñuy bindoo Touba Couta yëpp maa ngi leen di bëgg bu baax baax di leen ziar parce que ma see lim kenn bëri lool maa ngi leen di bëgg bu baax a baax a baax ñuy bindoo Touba Couta yëpp hmm. ak sama mbokk homme de tenue li ma am si supporter homme de tenue kenn xamul nu mu toll barke Alxuraan kon homme de tenue dañ lay topp li ma am si supporter homme kenn xamul nu mu maa ngi leen di ñaanal ñoom ñëpp jàmm ñoo xam liñ bëgg si si li ñuy liggéey yaa nañ si réussir om de tenue yëpp maa ngi leen di ñaanal jàmm ak sutura parce que samay samay supporter bari nañ si trop mais ñoom ñëpp ki may supporter ki ma supporter wut maa ngi ñaanal ñëpp jàmm. yow lan moo tax Touba naka Touba Touba Kouta homme de tenue yi bëgg ko. waaw parce que c'est dañoo bëgg jàmbaar ku nooy doo bëgg jàmbaar mais ku bëgg Touba ku bëgg Touba rek jàmbaar nga jàmbaar day bëgg jàmbaar. nee naa la man lépp lu lépp lu ñuy soxla si àddina si yëfu góor. su ma fa demee damay réussir parce taay bi ma yor la su ma demoon armée ñu ni mën na nekk lii su ma demoon basket ñu ni mën na nekk lii su ma demoon garde rapproche ñu ni mën na nekk su ma doon joueur ñu ni ku ko ah, lañ may woowee maa ngi bëgg alfali ahlu làmb di bëgg ñi ma àndal ñëpp ñoom pa abu ñoom di nga doon alaan ci làmb ji lañ may woowee si lépp maa ngi ñëpp di bëgg ñoom alfali mii sama doom day ñoom àlla faal ñoom ma xaali saar aw ma seen fay waa Ngexo sport waa Ngexo mbooloo ñoom Gara xam nga ñoom Mansour Kane ñoom ñëpp di bëggee Bili góor yàlla dëgg la di bëggee ñoom Sarr ñoom Matar Koutal ñoom Bouba daal ñoom Madiagne ñoom jaaja maa ngi bëggee ñëpp daal di bëggee site yëpp site yëpp maa ngi leen di bëggee di ñaanal lépp lu nga si bëgg rek yàlla la ko yàlla defal parce que man làmb boo aw ma ku ma si bañ man daay bëre sa mbër sax nga bëgg ma parce que arñe bi moo tax bu arñe bi góor jeex. maa ngi bëgg ñëpp di ziar ñëpp sant naa yàlla baax a baax jaajëf ok jaajëf